internautes de Sunugal 24 ñoo ngi nii ba léegi ci li nga xam ne mooy 143e anniversaire de l' appel de Seydina Limamou Laye ñoo ngi nii agsi fi nga xam ne mooy Cambérène boobu ba léegi ngi leen di dégtal image actuellement ñoo ngi fi nga xam ne moom mooy xabru bi nga xam ne Seydina Issa Rouhou Laye mu sell mi fi la tëdd ñu fas yéene ci biir incha allah xool ñi nga xam ne ñooy riverains ñi nga xam ne ñooy taalibe Laayeen ñëw ne mooy Seydina Issa Rouhou Laye mu sedd ah, sant yàlla maa la delloo ziar soxna si ayca lan ngay wax mbokk internet yi si bés bu màgg bi tay waaw euh, sant yàlla rek di ñaan yàlla ñu fekk koy ay ati at ñun ay taalibe lan euh, ku ne xam ne ay taalibe murit lan te kër diine yëpp benn la te foo dem am na fay soppe foo dem am na fay xarit tey lii di appel bi ñu ñëw fi tey ziar sunuy xarit sunuy sëriñ ku ci mel ni Ibou Seyni laay nekk sunu xarit nekk sunu waay munu su appel bi jotee wax dëgg yàlla su ñëwee ba fii war nañ fee ñëw te du sëñ Ibnu Seynu laay doog am nañ fa ay xarit ay soppe yu bari waaye fi mu leen dem deen fa dem ziar leen ndax xam suñu xarit di ziar ñëpp ci appel bi di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm réew mi yàlla fi yàlla def jàmm réew mi yàlla na ndax tey jii ay nit yu baax ñoo ñoo tëdd senegal ay nit yu baax ñoo tëdd senegal ay nit yu baax suñu tëddee Sénégal kon nañ fiy wax jàmm di def jàmm yéenante jàmm loolu rek mooy àdduna ndax àdduna solo su appel bi xewlee maa ngi Cambérène maa nga Yoff Ndiassane waxi nopp Tivaouane waxi nopp ah Xaadir euh, Laayeen Cenaba Cenaba yi ah kon ñun amuñu fenn sens interdit xartu ñëpp lan yàlla na fi yàlla def jàmm ci réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm ñu fekkee appel bi tey nag tubaarikàlla macha allah ba ma duggee Cambérène sama xol dafa sedd ndax dama gis taalibe yi gisoo la mooy jàmm balaa ah, ah, mooy la naa Issa laay laay Maxtaar laay laay laay laay laay laay di ñaan nag tey lu ma fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu réew mi yàlla fi yàlla def jàmm tey ñaanal sama rakk ji muy saa kees suñu combat bi jëm la cinq yàlla may ko dam sedd guy ci barke borom bis bi ci barke borom bis bi maa ngi tàllal këru diina yëpp loxo di leen tàllal ñaan ñu ñaanal ma sama rakk ji yàlla may ko ndam la cinq ndax wax ji bari na loolu jërëjëf. laay ma ay soxna si maa ngi lay ziar. yàlla boole nangu ziar. fan nga jógee. ñun ñu ngi jóge géejawaay géejawaay ngeen jógee waaw ay laayeen ñun ay murit lañu waaye dañoo ñëw rek bëgg maam limaamu laay ndax yaakaar nañ ni rek yoon yëpp benn lañu murit bi tiijaan bi xaadir bi laayeen bi ñaseen bi canaba yi lépp benn la rek moo tax ñu jóge ba géejawaay marché bu bees ñëw pour ziyaare sàkku si ñaan macha allah ñu gis la nga dugg si fi nga xam ne fii la ku sell ki nekk Seydina Issa Rouhou Laye gis la nga dugg ziar ba pare tey lan nga ñu mën a wax ci li nga xam ne moom mooy euh, seydinaa Issa wala boog papam ji di maam Limaamu Laay li ma li ma mën a wax daal bi duggee daal yëg-yëg la bi ñu duggee daal ba gis maam Seydina Issa Laye ak njabootam yëpp fi ñu tëdd ñu uufal ko ko sunu xol dafa sedd xam nañ ni diina lislaam lépp benn la lépp benn la te dañuy delloo ci Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yëg-yëg boobu la ñu am suñu xol dafa sedd lépp lu luñ fi ñaan rek yal nañ ko bokk yal nañ fi teew déwéni déwéni déwén bu déwénee yal nañ fi tase yal nañ fi tase kenn bañ a manqué kenn bañ a tëdd Sénégal yàlla def ci jàmm Sénégal yàlla def ci jàmm waaw ñuy ñaanal nag ki nga xam ni moom la ñu bëgg ci sunu xol muy ki nga xam ni moom tey jii moom mooy Sonko ma koy ñaanal waaw mu sell mi ma koy ñaanal ci barke Baay Laay yàlla na jëm réew mi ndax jamono changé ndax jamono moom bu changé rek dundi bi metti na xëy na bu jëlee réew mi rek xëy na yëpp wàññeeku rek waaye fi mu nekk metti na lool. waaw loolu daal la ñuy wax. soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama cher. waaw sa jonga ma gis nga ko ci bésu Mame Seydi Laay bi foo man maa ngi jóge waaw moo la indi ci appel bi tey. dama ñëwoon rek féete si appel bi comme ni ko suñu mbokk laay yëpp di defee di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sangu-sang yi euh, di ñaan yàlla may ñuy fekk ay at yu bëree bëree bëree bëri bëri bu déwénee incha allah mu dàq ren ci kàttanu yàlla. waaw def thème boo xam ne dafa am solo actuellement fi réew mi toll muy jàmm la paix yow lan ngay wax si thème boobu tuuti nii. xanaa di ci kontaan di ko rafetlu bu baax parce que ku ne xam na Sénégal fi mu yëngu na. te jàmm waxumala Sénégal mais àddina yëpp moom la ñuy ñaan donc kon concept bi fi mu toll nii jàmm la ñu soxla parce Sénégal ku ne xam na ni yëngu na kon euh, thème bi dafa ñëw ci waxtu wi ko soxlaa ñu koy rafetlu bu baax aussi di ci ànd di ñaan yàlla jàmm jooju nga xam ne ñaan nañ ko fi yàlla na ko yàlla saxal Sénégal saxal ko ci àddina yëpp ñun ñëpp ñu fekkee ko. jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kontaan nañ ci yow. bon man maa ngi jógee poste Thiaroye. poste Thiaroye. waaw poste Thiaroye laa man murid la waaw ah, mais ñëpp benn lañu rek ah. waaw li ne kër gi moo ne kër gi fële li ne fële moo ne feneen ñu ñëpp en tout daal ñoo bokk baatu laa ilaaha illallaah bi ñoo bokk gëm rasuulullaah kon yaakaar naa ñun ñëpp benn lañ waaw leneen li ne Cambérène nekk Yoff mooy nekk Touba nekk Tivaouane nekk Ndiassane nekk fépp moo tax euh, bi ma sama troisième fois ma ñëw chaque année ma ñëw chaque année incha allah fi laay nekk ba ay minuit une heure ma doog a ñibbi waaw su ma xëyee su ma mënee dem ma ma mënta dem ma dem liggéey mais barki démb rek laa jógee Kazu Rajab Touba maa ngi woon Touba mais man chaque année maa ngi fii waaw dafa neex trop macha allah. macha allah nga ñu mën a wax ci Seydina Limaamu Laay. ah kooku moom beneen mbir la moom kooku moom macha allah beneen mbir la di ñaar yàlla ñaar taas seen barke ndax euh, ñoo dundal li ñoo dundal diine ji fii lislam bi toll fii tey à cause de ñoom la waaw kon ñun mënuñu lu dul di leen ñaanal ci xam ne li am Sénégal amul benn dëkk. li am Sénégal gi macha allah amul beneen dëkk waaw ndax fii kër goo dugg rek donc non seulement bu dul événement du dara man su ma doxoon ñëw ba sa kër jot ne damaa xiif da nga may jox mooñ ndax murit laa xamoon ndax tijaan laa mais su ma ñëwee rek ne la subitement dama xiif di ma jox ma lekk kon moo tax ñun ñëpp benn lañ tarixa yëpp benn la waaw Seydina Limaamu Laay day demanteeg Serigne Touba dañuy weccoon tey xalaat dañuy dem demlante ñoom ñëpp am na loo xam ne nii boo diggee fi di nga ko ay turandoo sëñ Touba ñi ngi fi ay sëñ Touba ay euh, turandoo sëñ Modou Moustapha mi ngi fi ñu bari xam nañ ko moo tax dina jëpp benn la waaw ñu xamul nag ñooy bëgg di far fii far fële far fii mais ku ci nekk daal boo xewloo da ngay jóg boo demee màggalu Touba laayeen yi dañuy ñëw Tiwaawan day ñëw ñëppay ñëw ku ci ca boo lenn bu boo toogee tey di nga dégg ñu ne ñu sëñ Muntaxa yebal agsi nañ kon ñun ñëpp benn lañ. mooy nekk daal Cambérène daal fii daal dëkk jàmm la. xam daal dëkk bu sell la dëkk bu yiw la daal neex na ma béy na jàmm daal genre yow lañ fi mën a wax daal. waaw ngeen di wax si si jàmm ji nga xam ne moom mooy thème bi ak fi réew mi toll actuellement ci yenn tension politique yi lan ngeen di wax seen moromu jeunes yi. ah ñu def attention ndax affaire yi gis nii daal moom lii daal moom kii na daal comme ça ni ñuy def nii ay kii nii di kii nii génn nii di guerre di grève ñii di rey seen bopp di di ñàkk seen bakken amul benn sens daal fii ku nekk daal na nga toppatoo sa avenir daal xool sa ëllëg daal loolu daal lañ leen ñoom café Touba ñoom du tee waa xam nga lii tamit dafay baax ci mbir mi nga wane jigéen ñi nga xam ne ay jàmbaar lañu dañuy liggéey soxna si maa ngi lay ziar maa ngi delloo ziar yaa ngi jaay si fii si appel bi fan nga jógee man maa ngi dëkk cité Fadia parce que Fadja nga jógee. Mhm. noo gisee appel bi. appel bi ça mais njaay bi li ma ci xaw a jaaxal njaay bi daa xaw a taxaw de. ah dafa taxaw daa taxaw de. gars yi ah, eh. ci sama bopp daal. ma àndal tamit même chose. yaa ngi doog a jaay si appel wala. non non naa jaay si nag mais deux ans yi passé corona bee taxoon ñëwuma uh-huh. mais après maa ngi door a ñëwaat nii. alors nga ñu mën a wax ci appel bi nga xam ne dañ koy amal at mu jot fi ci Cambérène. ah macha allah nit ku nekk moom danga koy ñaanal ci li mu nekk rek yal ko ci Seydina Limaamu Laay daal yaakaar naa ne ñëpp a ko bëgg daal bu appel jotee tey ñëpp ay jógee fu ne di ñëw taalibe cheikh yi dañuy ñëw murid yi dañuy ñëw xaadir dañuy ñëw man mii di wax ak yow taalibe sëñ Babacar Sy daal te am na ay xarit yoo xamante ne dañ may invité damay dem macha allah daal di leen di ñaanal yal na leen yàlla gën a yokk seen ngëm dolli xéewal ci dëkk bi musal ni ñi ci seytaane ak cat ak musiba ak balaa te ku ci nekk nga bàyyi ko ci lu mu gëm man daal loolu laa gis daal kontaan rek kontaan te bu mag a mag a mag a a mag ndax année bi chaque année dañ ñaan yàlla di ko fekk chaque jour di ñëw di ziar si ndax ki tëdd fii sëriñ bu tedd la bu màgg ñëpp bëgg li ngi naan bëgg ñëpp ñëpp ko bëgg macha allah ñëpp a ñëpp a yàkkamti at bi ñëw ba ñëw ziar ñaanal ko ñaanal suñu mbokk yi ñaanal mboolem jullit. Mhm. ci ñu jël thème bi def ko li nga xam ne moo nekk jàmm jàmmi réew mi moom la ñëpp di ñaan yàlla lan ngay wax si loolu. waaw jàmm ci la lépp xaj ndax réew amul jàmm du naat te jàmm ci la lépp xaj dañoo war a àndandoo bànkoo nekk benn jël ñaaw teef yi teg fële. yu ñaaw yi ñu rek teg ko fële jël yu rafet yi génne ko ndax lu ñaaw baaxul day yàq àdduna day yàq xol ah te réew moo gis amuñu jàmm ah loolu baaxul ah jàmm ci la lépp xaj dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu jàmm ñii politique nañu boole seen xol yi mu nekk benn ndax jàmm ci la lépp xaj ajaa ci la lépp xaj nañ nekk benn nañ nekk benn te yàlla tax dañ nekk benn te yàlla tax yal na yàlla barkeel liggéey bi <laughs> mees lay jaajëfal bu baax a baax Mansour maa ngi gisaat suñu benn tonton moom tamit ñu gis la tonton nga daal di dugg ci li xam ne moom mooy xabru Serigne Seydina Issa Laye mu mu mu sell mi lan lan lan lañ mën a retenir tey ci li nga xam ne mooy appel bi. waaw soxna si ñu ngi lay ziare di ziare euh, média bi xaw ma kii la sunu vingt 24 di leen ñaanal jàmm di rafetlu liggéey bu baax a baax waaw tey dañ fi ñëwoon fii di ziare. comme ni ko parrain di defee chaque année wax dëgg yàlla di wax ni senegal moom lii la baaxoo yàlla dañoo may loo xam ne mën na ni may ñu ko ci yeneen réew yi Sénégal rek la ko may ba tax na may profité wala di lancer benn appel que mooy sunu kër kilifa diine yi nañ leen di respecté di leen respecté c'est très important parce que dafa am lu bëri loo xamante ni tey bu réew mi tolloo fi nekk ci jàmm ñoom dañu cee joué parce que seen i ñaan seen yëpp kon nañu del delloo si waat valeur yi te bàyyi léegi li xaw léegi kenn xamu ko warmaalatuñu kilifa yi warmaalatuñu suñu kilifa diine te loolu c'est dangereux bu ñu tolloo foofu rek moo tax ñu ñëw fi surtout ku ci nekk war a tàllalaat sa loxo ñaanaat Sénégal am jàmm jàmm bañ ko xamee woon mu nekk ci je pense loolu moo nekkoon tey kontaan trop nag ci ñëw siyaarewaat sunu sëriñ bi naa Limaam di ñaan yàlla yàlla yokk leeram mbaa yaa ngi si jàmm. sant alhamdulilah foo jugee. Yof. ah nga jugee ñëw Cambérène appel si kon maanaam laayeen nga. laay Matar laay kay. macha allah ñu yaa ngi la gis nga ziar ki nga mooy Seydina Issa Rouhou Laye mu sell mi tëdd fii tey lan lañ mën a retenir ci ci li nga xam ne mooy appel bi. ah appel bi daal macha allah sang bi moo ne woon ñu ñëw wuyu si ka si wooteem bu sell bi te j'espère que ñun ñëpp ñëw nañ quoi te alhamdulilah quoi dugg nañ si bisimilah. te ñu ngi ñaan yàlla tamit ñu génn si alhamdulilahi rabbil alamin te képp bépp jullit bu ax bépp képp koo xamante ne doo jullit tamit li nga si wuti saal yàlla defal la ko quoi ndaxte tey jii moom bés bi ko gis xam ni doo xàmmee jullit beex chrétien beex ñëpp daal ñëw nañ teew si macha allah tey ñaan yàlla lépp lu fi waaye ñaan rek yàlla nangul la ko quoi alhamdulilah. alors ñu jël thème bi daal di koy axé autour de la paix ñu gis euh, li nga xam ne mooy li jot am ci biir réew mi ci wàllum ñàkk peut-être mën naa ne jàmm géej nañ ko am si biir réew mi actuellement ñëpp ngi tiit yow en tant que jeune lan ngay wax si loolu surtout à l'endroit morom yi nga xam ne ay jeunes lañ comme yow. waaw ah, li may wax foofu daal message bi mooy lancé waaye mooy jeunes yi daal ñu xam ne ñun ñoo moom addina bi quoi en fait parce que du ma wax réew mi kese àddina laay wax. parce que bépp bépp affaire boo fi gis nii buy daw si àddina bi te jeune bokku ci rek. peut du avancé kon il fallait que tey jii nag jeunes yi ñu am li ñuy li may li may njëkk lancé mooy maanaam ñu yaru yar mooy première chose quoi parce que olof Ndiaye nee na réewande moom lu mu la xañul moom mënu la koo may quoi mu ëlbatikuwaat ne yar lu mu la lu mu la mayul mënu la koo xañ kon na jeunes yi yaru xam seen bopp tamit te am ambition tamit tey rêver di réaliser seen rêve te ñaan yàlla tamit bés tamit. comme li nga wax si côté cadre Sénégal nii rek tey jii jàmm juñ fi am nii tey mu jaaree fa continuer ba faw te incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. allahumma amin yal na ko yàlla def ñu gis leen ngeen di sinap boobu ba léegi yéen a ngi sinap da ngeen di yi wala lan la. non c'est lii pour pour juste rek pour gars yi xam ne ñun ñu ngi si bés bi te bés bi ba su jàmm la maanaam yow sa couleur bi nga laal nii rek ku la gis sa xam ne la paix moom lañ fi woote quoi en fait bés bi moom lépp la ëmb macha allah billahi